ñu ngi lay ñaan bala nga sétane suñu vidéo nga dal di abonné bés ko de notification bi pour vidéo bu dugg rek gën mën cee jot seen déformation bi leen di jox xibaar yu wër te wër taw fi nan patati patata ah ay wa Touba li wa Touba ah, ah, ah, lif lif lif barke suñu tali am Touba gi bis bi fi rëccee musiba mabba ko ba dugg fi billahi bis bu ñu jaay complexe ba jël fi safinatul aman man dama nek marché occas yor fa place di liggéey ay jamono gis ñi contrôle safinatul amaan ku ma gis mu contrôle leen rek ba moo ko xoolee du doon ko jub billaahi du ay caaxaan ku ma gis mu contrôle safinatul amaan xamal ne doonul ko jub man safinatul amaan man na maa nekk ci dëkk bi téeméeri at du ma leen contrôler du ma leen lijjanti dal di yàgg bañ jotee ak man ak sama njaboot loolu mën naa koo waat mais sëñ bi nit day nekk ci lu baax mais li ñu bëgg nag mooy Touba yam ak dëkk yëpp yem ak adduna bépp mais loolu mënta nekk Touba gii xam nga ne commissaire bii bu taxawee fii naan ay luwaay réew mi ah li mu nang bu ñu fi jëlee kenn koo xam ne nii lii yoon terewu ko bu ñëwee fii duñ ko mën a téye ah boo ko téyewul tamit nga bàyyi waa ñoom safinatul amaan wala xuddaamul xadim ñu lijjantil ko seen bopp looloo tax ñu teg leen fi mais yow fii titre foncé la titre foncé la amu fi benn sañ-sañ dañu defee ni ngir maslaa rek waaw benn sañ-sañ amoo ko fi mënu leen a fexe fexe ba luwaay yi daw dakaar di daw fii mënta nekk waaye li ma xam ba xam daal mooy complexe bu ñu dugal ci yenn gis nga commissaire bii nekk fii di wax la muy wax dara du ci dëgg dara du ci dëgg waaw kanam yooyu la teg di ko rafetal ah gëm bëgg a gëmloo nit ñi naan ay waa safinaru avant luñ ci indi te yoon doxalu ah Euh, sartu réew mi nanguwu ah, du jàll déglu naa euh, vidéo boobu professeur bi taxaw di wax xale bu ndaw taxaw di dévier kilifa yi ah ci loo xam ne nii te jamono suñu laat moo ko doxoon gis ni lii ak yàqu tële ci dëkk bi mu dox ko wax ko dem ci état bi ba doomi siñ Tuubaa yëpp signé ci ñu accordé ko di ko wéyal ci dëkk bii ku ne xam na ne Touba wuuteeg dëkk yee tax lii di fi am ab xale bu ndaw taxaw fii di jéema jaay yabaate ah di jéem a wax wax yoo xam ne ay waxe sa naqa sa xanang man sama kàddu ma sa sañoon mu jot ci billaahi ah yabaate bay bëgg a dee yow dundoo sariyaan dundoo lislaam tere yàlla yi sa yoon nekku ci digle yàlla yi sa yoon nekku ci am na sax xëy na yoo ciy jéem a def bu julli jotee nga jóg këpp këppal mais gis nga xol bu wow mooy tax loolu nga koy reconnaître barke booy lekk baa sa xol wow lu bon daf lay daf lay lu baax daf lay seene moo waral ay commissaires yi duñ xëyee ba ngoon ci lu bon yabaate ngeen trop loolu kenn mënu koo dund man safinatul amaan benn problème laa ci gisoon muy mët jóob jawbe col gi mu daan col col googu moo ma soof damay damay wax li nga xam ne man moo nekk ci man rek yëre tubaab yu danga danga dang mel ni kuy toppandoo tubaab yi mel ni kuy toppandoo police yi di takk ay ay lu ne mu takk fii di doon ak jaagal goo xam ne nii mais loolu ñooñu luñ lay respecté luñ lay respecté xaw ma ko da sol say caaya li mérito dëkk bi sol say xaftaan ñëw di wax ak ñoom yor xel mu sell di wax ak ñoom ñu respecté la loolu mooy yëfi nit mais nit nag bu jàngut li ma xam ba lu ne mën na koo fëkk boroom xol bu tilim boroom xol bu takk koo xam ne sëñ bi yow du xëy yàgga yàgga yàgga yàgg ba nga xëy suba jangul mak juróom-ñaari fukk juróom-ñaari isib alquran wala nga jang fuk isib alquran commissaire yi commissaire yi ak yi ay livre lañuy xey ci lañuy gon gont mi fi français yi indi ci lañuy nek nekk loolu lañ gëm de loolu lañu len nampal lu baax xamuñ ci dara buñuy def yi ñuy def yëpp ay ngistal talaak yoy dong waaw yoy kep la mais buñ sañon dëkk bi mbooleem luy sarian wala ay islam da fi jóge ndax moy tax seen liggéey mel na war mel waaw am na wa non basam la gis nga commissaire bii ku yabaate la commissaire bii nii ku yabaatee yabaate la man maa ko wax maa ngi nii jàkkaarloo mu ci laa ne xam naa leen bu baax a baax waaw mais nag dëggu dafa bari ñoo xam ne ni defatuñ ko ci àdduna waaw mais képp kuy dund lu baax xam nga ne commissaire bii suñu Touba la ñun murit yëpp foo ab murit dëkk eh, war may Touba sayte la war a doon man dey eh, safinatul amaan daaw labu bénéficié ci seenub liggéey daw ma wax la li tax ma bénéficié ci mbënd mi bi mu ñëwee nangu kër ñu déllu sama kër pap gi ci daaru Warfa war fa magalé kër gi ñu jaakar lool net eh, njabotu borom kër ga doon liggéey kata euh eh, eh, kayar am ben dem ba xamanté fa ko daaira daaira ba duy bis bis bu fess del ñu wara dal ci kër ga indalé seen dendek, seen i dënd ak seen lepp tak ay radio yi fort panda magal gi yep ñuy tek ay xeside yu neex ba guddig magal ñu samp fasiyene teug reng reng reng reng jo xamanteni señ bi nit ñi ñi seen bop yi di metti mënatu ñoo wax téléphone koy waxtaanal ku ne faaw nga jige ko lool jige nobbi sogo sogo sogo mu xaw sogo mu xam li ngay wax sama papa bi ma jur kol amante naa coloré señ señ sëñ mo Lo Ngabou yëkkati téléphone am wo sëñ mo Lo Ngabou mu yebal fa ay élément keroog bi ñu ñëwee nangu nangu nënd yeeg jémbee gi yëpp tag dakkal tëgg ma ci laa doog a noyyiwaat man ci laa soog a xam ne que nag lii ñii ñii li ñuy def ci dëkk bi am na njëriñ te fa fa fa jëlloog ñun di ginnaaw raay am na fa ñoo xamante ne ba ñuy tëgg nit ñi mënuñ ca dara am na ci gan ñoo xamante ne nii di ay borom barke yor oto dañoo jóg ci sensé dem ñibbi ndax fa ñu jógee sax bàyyiwuñ fa loola te xoolal màggal gi léegi dafa mel ne tëgg maanaam <laughs> dafa mel ne tëgg dafa bokk ci màggal ponki màggal gi te loolu kan moo koy aaye kan moo koy aaye li gën a gaaw ci nga nga woo benn benn benn xudaamul xadim wala nga woo benn safinatul aman ñu ñëw ñu ñëw dakkal ko ci nam gën a gaawee tey bu dul woon loolu tëgg moom lañ doon fanaane man ci laa xamee seen liggéey dama ne bu ñu complexe laa wax li mata aaye nañ koy aaye lu bon faaw ñu di ko aaye voilà nit ñi kenn du leen boyal ci seen bakkanu bopp yi. looy wax ne Iran bu yàggut lu mel nii moo fa am ba ak ndogal dal leen lu mel ni safinatul aman ak xadim moo am Iran di puissance bu mag ci adduna bi ñuy sayt wàllu diine gi am xale bu ñu fa jàpp bu jigéen ba yàlla dogal xale ba mujj faatu ba mu faatoo gis ngeen la ci am occidentaux yi bëgg cee gaaw profité ah indi ci réew ma xeex bu kenn xamul fu mu yemi ak sotti atte yaag lépp bëgg cee profité gis ngeen la fa xew nga xam ne dañoo identifié ñoo xam ne nii ñi ay américain lañ ñi ay français yu leer nañ irakien yi jàpp leen ñu bokk ca ña nga xam ne ñoo doon encouragé manifestation yi c'est que àdduna bi dafa am ñoo xam dañ fay nek bëgguñ lu baax gis nga li ni am Touba buñ sañoon am nañu nek fi ci réew mi ñoo xam ni ñoo gëna bañ lu baax buñ sañoon Touba lu bon rek fi am nak man suma doon kilifa yi di len fréquenté man de dina wax ak ñom lo wax ak ñom no xamni ni te yalla rek kay tax duma ci jublu dara dul yalla kep ndax man yalla rek la ragal mais nit ko xamni yow atti wo ci sariyan ah xamoo lu baax xamoo lu bon ma ne dëkk bi pantalon sax duma ko fi sol astamaa leneen te kenn tëriwu ma ko nag man maa jël sama coobare pantalon bu solopet bi laa waxee waxuma bu bu bu jiin bi bu dama ko jëlale mais sans pantalon solopet sax duma ko sol ci dëkk bi Sëñ Tuubaa bi duma ko sol sax feneen duma ko sol sax feneen Sëñ Tuubaa nag bi muy sañ ci dëkk bii jàng ak jàngalee taxoon mu sañ <laughs> jàng téere téere jàng ak jàngale téereb yàlla bi moo taxoon mu ci dëkk bii ak daw nit ñi ak daw li nekk ci loxoy nit ñi wéetal fi yàlla boroomam moo taxoon mu sanc buñ demee nag ba kenn ku nekk ñëw fi nag lu ne nga nekk ci am na fi ñoo xam ne nii ñu ngi fi lu mu yàgg yàgg yàgg li Sëñ Tuubaa di tere duñ ci def dara li muy digle ci la ñuy ku am sab complexe nak wala nga jël feulé sa yorub nasaraan ñëw bëkk ko indi fi du jall de du jall wallahi lancim du jall waaw dafa am ño xam nak seen xol yi tilim na lu bare bare bare li li li alquran nan wa sayyana lahum shaytanu ahmaluhum dafa am jëf yo xam shaytan mo koy rafetale nit yi mu dem ba jàppe ko lu baax jàpp ni lii garaawut te fekk c'est très dangereux ma ngi mëna wat yalla ni képp koy jang alquran diko ko amna yo na yoo xam man maa la wax li képp kuy jàng alxuraan nag téere waman waman ya'uuzu an zikri rahmaan nuqayyid lahu saytaanan fa huwa lahu qariinun koo xam ne yow atte yàlla yi da nga koo won ginnaaw alxuraan téere bi yàlla bi da nga koo won ginnaaw ah mais nooy def ba saytaane du la guidé nooy def ba seytaane du la guidé wan leen ma benn commissaire boo xam ne nii néew na lool bu fekkee am na